Euh, kon toogal fii euh, ministère de la santé euh, ku toll ni Serigne Mountakha Bachir yàlla na suñ boroom dolli kàttanam te may ko wér yëkkati kàddoom jëme ko ci li nga xam ne mooy mbiru dialyse ak insuffisance rénale nu mu ko defee mooy dafa yëkkati ab lim bu am solo. bu fanweeri million wax ne ak tàmbali la ci projet bi nga xam ne euh, association bi lëkkale Jalisa yi euh, yëkkati woon nañu ko ànd kook ñun ci tabax centre de dialyse boo xam ne dafay am capacité ngir dékku euh, way tawat yi nga xam ni seen lim dafa am solo ci ci dëkk bi kon dañ koy rafetlu di ko sant fi sant yem te di ko ñaanal suñu boroom fay ko euh, maamam Sëriñ Tuubaa euh, gën a bëgg ci moom loolu dañu ci euh, mën am mënuñu am kàddu yi ngir maanaam biral suñu cant ndax jëf ji dafa dafa yegg ci dafa yegg fu ci ñun waaye daal mm, sant nañu daal sant nañu suñu suñu borom waaw maanaam Euh, mbiru santé euh, dafay loo xam ne euh, droit constitutionnel la maanaam état ci boppam moo garantir jaare ko ci constitution bi wér-gu-yaramu sénégalais yi nga xam ñoo ñoo nekk Sénégal ak sénégalais yi nekk bitim réew sax nga xam ni état la war mu faggu ay barabu fajukaay yu mucc ayib dëppook jamono te daj dëkk bi waaye ni loolu waree état noonu la ko mbirum kaaraange waree noonu la ko mbirum économie waree maanaam fànn yëpp ba tax na suñu état yi ñu dëkkee seenu seen seen doole néew euh, duñ ko mën a matale ni mu ni mu waree donte le am nañ ci yéene ja ba tax na bu fekkee communauté bi maanaam askan wi ci seen bopp organiser wu nañu bay def lu mel nii maanaam di jàpp ci mission boobu kon dañu koy rafetlu boo boo demee fépp ci Sénégal nit ñi ñu ngi organiser wu di jàpp ci euh, tabax ay infrastructure de santé di jàpp ci même di wut euh, ay nit yu yu fay liggéey loolu yëpp day ñëw ci ndimbalu mission bi nga xam ni état mu ngi koy dox kon sëriñ bi dafa xàll yoon dafa dafa wane exemple euh, ndax moom njiit la am na euh, ñu bare ñoo aju ci moom mu xam tawat ji ni muy def xam itam euh, ni yéene ji mu ngi fii waaye man-man bi matewu ko ba tax na moom mu yëkk mu yëkkatil boppam lim bu takku def ko ci wax ni ak tàmbali la loolu ak soññ la ci képp koo xam ne yàlla mën loo na la ko te euh, boo ko defee day gën a gën a jagal yi fi li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal